sëriñ Abdou Khader Mbacke sëriñ Abdou Khader Mbacke mi ngi feeñ jamono ci atum 1882 ci dëkk bu ñuy wax jeeñeel jeeñeel nag mi ngi ci suuf si ne di Saalum ci dëkk boobu nag la sëriñ Abdou Khader Mbacke feeñee jamono di doomu sëriñ Mbacke soxna ak ku ñuy wax soxna ja Touré ginnaaw bu mu feeñee jamono ci dëkk boobu nag di jeeñeel ci atum 1882 waajuram sëriñ Mbacke soxna mi ngi ko tuddee waajuram sëriñ Abdou Khader Mbacke mi nekkoon taawu maam Balla Mbacke sëriñ Abdou Khader Mbacke nag ñu gën koo xam ci sëriñ Abdou Dia Mbacke mbàkke duyool yi nag am na ñu bokkal soxna ja Touré ñu mën caa ku ñuy wax soxna busa mbàkke bintu soxna ja Touré bintu sëriñ mbàkke soxna ak ku ñuy wax soxna maam xari mbàkke bintu soxna ja bintu sëriñ mbàkke soxna ak ku ñuy wax sëriñ ibrahima mbàkke ibnu soxna ja Touré ibnu sëriñ mbàkke soxna ak moom sëriñ abdu xaadir mbàkke ñu gën koo xam te sëriñ abdu ja mbàkke duyool yi ibnu soxna ja Touré ibnu sëriñ mbàkke soxna ñeent nag la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ak kenn kum bokkal waajur wu jigéen te bokkuñu waajur wu góor muy soxna faati ja mbàkke bintu soxna ja ture bintu sëriñ tuuba xaadim rasuul soxna ja ture mi laataa muy ñëw ci loxoy sëriñ mbàkke soxna ci ku baax ki sëriñ tuuba xaadim rasuul nag la njëkkee woon ba tax na sëriñ tuuba xaadim rasuul amoon na ci benn bant bu ñuy wax soxna faati ja mbàkke soxna faati ja mbàkke mi sax moo nekkoon taawub ko baax ki sëriñ tuuba xaadim rasuul ginnaaw bu soxna ja ture nag jógee ci loxoy ku baax ki sëriñ tuuba xaadim rasuul la doog a dem nag ci loxoy sëriñ mbàkke soxna mu doog faa am nag njaboot gi ñu leen limal muy soxna busa mbàkke bintu soxna ja Touré bintu Serigne Mbacke soxna ak soxna Xari Mbacke bintu soxna ja Touré bintu Serigne Mbacke soxna ak Serigne Ibrahima Mbacke ibnu soxna ja Touré ibnu Serigne soxna koo xam ci Serigne du yooli ibnu soxna ja Touré ibnu Serigne Mbacke ma wax leen sax moom Serigne Abdou Ja Mbacke du yooli mii nag lu mu bokk ak ku bax ki Serigne Touba Xaadim Rasuul waajuróom góor wi ñuy wax Serigne Mbacke soxna doomu Serigne Abdou Khadir Mbacke la Serigne Abdou Khadir Mbacke doomu maam Balla la Serigne Abdou Khadir Mbacke mii nag moo nekkoon taaw taxawu maam Balla te sëriñ Abdou Khadir Mbacke ak maam Mor Anta Sali Mbacke mi meññi ko baax ki sëriñ Touba Khadim ñoo bokk maam Balla sëriñ Abdou Khadir Mbacke ñu gën koo xam ci sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly doomi ko baax ki sëriñ Touba Khadim la ndax doomi magam la lii la bokk ak ku baax ki sëriñ Touba Khadim Rasoul moom sëriñ Abdou Khadir Mbacke ñu gën koo xam ci sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly bi mu matee dal alxuraanul karim waajuroom wa sëriñ Mbacke ku ñuy wax sëriñ Mbacke Ramata nag la ko jébbaloon ci dëkk bii nag di Mbacke Bawal mu dalal ko nag lii di alxuraanul karim mbàkke bawal dem nañ tim nag ci njàmbur ci sëriñ gàllaay jaw bi mu demee ci sëriñ gàllaay jaw nag di fa jàng nag lii di alxuraanul karim nag ak lii di xam-xam doomu sëriñ buso bi buso bii ñuy wax sëriñ mbàkke kandi buso ñoom ñaar ñoo fa nekkandoo woon ci kër jàmbaar jooju nag di sëriñ gàllaay jaw ci njàmbur ginnaaw sëriñ gàllaay jaw ci njàmbur sëriñ abdu xaadir ñu gën koo xam ci sëriñ abdu ja mbàkke du yooli del siwaatoon na itam ci loxoy waajuram mu jébbal ko maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ngir mu saytu itam nag lii di xam-xamam ci ñett ñi nag la sëriñ abdu ja mbàkke du yooli nag jaar nag ci wàllu njàng njàngum alxuraanul karim nag ak lii di xam-xam mu nekk nag ku nag di xam-xam bi mu del seem njàng nag ba nekk ci loxoy maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke naamal daaru booba itam mi ngi fekk ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul mu nekk itam nag ci loxoy tubaab bi nekk gi bi ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag ñibbisee ci géej gi ci atum 1902 ci fukki fan yaak benn ci mois de novembre ca 1903 ba nag laataa muy dellu gànnaar la ko waajuram sëriñ Mbàkke soxna jébbal nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul mu nekk nag ab murit nag jaayante baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul bi muy doog a dem gànnaar nag yóbbuwul sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli waaye sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli itam fekk na ko fa ànd ak nag sëriñ Aafiya Ñang mi nekk waajuru sëriñ Moodu Maamun Ñang keroog bi muy dem gànnaar ñoom ñaar ñoo ànd ginnaaw bu demee gànnaar nag toogu fa nag ba ni sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag jógee gànnaar kii di ko fa ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul na fa ci 1907 googu itam nag sëriñ Abdou Dia Mbacke Doyool itam nekkoon na fa ak ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul mu bokk itam ci tuut tànk yi nga xam ne ni nekkoon nañu itam ci dëkk boobu nag di ca yéen ñu mënoon caa ràññee Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke ibnu Xaadim Rasuul Cheikh Mohamadul Faadal Mbacke ibnu Xaadim Rasuul sëriñ Moor Soxna ibnu Mamor Jaara sëriñ Moor Roqaya Buso ibnu sëriñ Cheikhu Buso moom sëriñ Buso be Cheikh Massamba Mbacke ibnu Mamor Anta Sali Mbacke ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ci doomu soxna yi sëriñ Abdou Dia Mbacke Doyool itam nag ci lim boobu itam nag la bokkoon yoon ñu nekkoon nag ci dëkk boobu nag di cee yéen jolof ci ndigalul ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasool ku baax ki xaadim rasool itam di leen tarbiya ba tax na itam mbooloo moomu ñu leen limal ak ñeneen itam ñu leen tuddul ci dëkk boobu nag lañ jotee ngërëm di ca yéen jolof sëriñ Abdu Jàmbàkke Duyool itam nag ci dëkk boobu itam nag la jotee ngërëm nag di ca yéen jolof ci kim doon liggéeyal di ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasool liggéey biñ wax Biram Ñas ci ku baax ki Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul la jëm si woon fas yéene woon a jaayante moom nag ngir nekk nag murit bu dëggal nag ci ginnaaw Xaadim Rasuul bi mu ñëwee nag ba ziyaare moom Biram Ñas Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul di ko laaj lan moo nekkoon seen yitte mu di ko wax ne bëgg a jaayante ak yow nekkum murit nag ci sa ginnaaw laa bëgg Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul doon na wax Biram Ñas nag dama laaj ku ñuy wax Sëriñ Abdu Xaadir Mbàkke ñu gën koo xam ci Sëriñ Abdu Ja Mbàkke du yooli soo demee nag nga jébbal ko sa bopp lépp lum la digal nanga ko ko bàyyi sëriñ Biram Ñas nag ñëwee jaayanteeg kii di sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli Biram Ñas mii nag moo nekk nag taalibe bu njëkk a jaayanteeg sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli ci ndigalul ko baax ki sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul nag la doon seet si ngir jaayanteeg moom Xaadim Rasuul itam moo ko yabal ci sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli moo tax sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli daana wax ne Biram Ñas mii ñu gën koo xam ci Biram Asta Ñas de mbooleem taalibe yi mu am taalibe bii moo ko ci gënal ndax sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul moo ne ko demal jaayanteeg sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ Abdou du yooli sëriñ Abdou Dia du yooli daana ci teg ne mbooleem taalibe yim am suñ ko wanoon ginnaaw du ko metti waaye biram asta ñas mii de bu ko wanoon ginnaaw dana ko metti ndax xaadim rasool moo ko jébbal ginnaaw bu mu jógee ci yéen jolof nag la jaar nag ci dëkk bu ñuy wax njëgéej njëgéej googu nag ginnaaw bu mu fa jaaree nag ñu bare baree bare ci waa njëgéej nag jébbulu woon nañ nag ci sëriñ du ja Mbàkke du yooli mu tàmbalee yoru mbooloo nag di yar di jàng ak di jàngale ngir ndigalul xaadim rasool li nga xam ne nii kan moom rek la jàng te fa séene koo tari mbooloo mi koy yaakaar xaadim rasool nag wéy nekk ca yéen nag ci atu 1907 nag ba ginnaaw ca jolof nag njaareem sëriñ Abdou Dia Mbàkke du yoolu nag daana ko fekk nag ci dëkk boobu nag di njaareem di ko yit nag ay addiya ci dëkk boobu nag di njaareem la ko sëriñ Tubaa xaadim rasool nag joxe ndigal ngir nag mu dem sanc nag yeneen dëkk ñu mën cee dëkk bu ñuy wax daaru ñasa mu ngi ci suuf si nag di njàmbur ci région de Louga dëkk bi nag ginnaaw bu mu ko sancee nekk fa ab diir nag di yar ak di jàngale keroog bi mu fay bàyyi koo nag di sëriñ Ibrahima Ñas la fa bàyyi Niass nag moo nekk nag taalibe bi njëkk a jaayante ak moom teg ko baax ki Serigne Touba Xaadim Rasul jébbaloon ko ko ginnaaw Daaru Niass ci Louga sancaatoon na beneen dëkk itam nag ci suuf si nag di Mbuur muy dëkk bu ñuy wax ñoq ginnaaw ñoq itam sancaat na beneen dëkk nag di Daaru Salaam du Yooli Daaru Salaam gi nag keroog bi mu koy sanc dafa ñëwoon ci njaareem ziyaare si ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasul Serigne Touba Xaadim Rasul di ko xamal ne soo demee nag ci suuf si nag di Duyooli nga sanc fa ab dëkk ko Daaru Salaam ndax suuf soosu bi may wër nag dëkk bu sell bii nag di Touba suñ borom xamaloon na ma ne pàkk bii nag ci si la am na nag beneen suuf nag bu ko gën a sell ci la ma suñ borom wat nag pàkk bii nag di Touba loolu moo tax nag sancu ma ko waaye nag damal sanc ko yow sëriñ Abdou Khadir Mbacke ñu gën laa xam ci sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly ta nga toog fa ndax bërëb boobu kat ci suuf su sell si la bokk te soo demee nag nga tudde ko Daaru Salaam ginnaaw bu sëriñ Abdou Dia Mbacke ñëwee nag sanc suuf soosu nag tudde ko Daaru Salaam Douyoly ji nag ay siyaan ñoo fa nekkoon siyaan yooyu nag ñoo tuddoon Douyoly loolu moo waral nag ñuy dàkkantere Daaru Salaam Douyoly ginnaaw Mbàkke Mbayaar nag ak Daaru Salaam du yóori seenub sorente ci ñaari kilomètre rek lay toll wala un kilomètre cent Mbàkke Mbayaar googu ñaari doomam yii nag la fa seenu njaboot féete muy sëriñ Mouhamadane Mbàkke moom sëriñ Abdou Dia Mbàkke du yóoli ak sëriñ Mahmoud Mbàkke moom sëriñ Abdou Dia Mbàkke du yóoli mu wéy nag nekk nag ci dëkk yi nag di liggéeyam di jar di jàng ak di jàngale lu mu am nag yit ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ba ni sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag génnee àdduna ci atum 1927 ci fukki fan yaak juróom-ñeent ci mois de juillet mu fab léppam nag jébbal cheikh mamadul moustapha mbàkke moom sëriñ Abdou Dia Mbàkke Doyoly laataa ñuy xuus sax ci mbirum sëriñ Abdou Dia Mbàkke Doyoly ñu wax leen ne moom mooy kan sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke la ko waajuram tudde di sëriñ Mbàkke soxna sëriñ Abdou Xaadir mbakke mi ko waajuram tudde moo nekkoon taawub maam Balla Mbàkke maam Balla Mbàkke nag moo meññi maam Mor Anta Sali Mbàkke mi meññi Xaadim Rasuul ba tey sëriñ Abdou Dia Mbàkke Doyoly waajuram wu jigéen wi di soxna Ja Ture ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul dëkkoo woon na ko am na benn bant bu ñuy wax soxna Faati Ja Mbàkke soxna Faati Ja Mbàkke taawub ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ba tey ci mbirum sëriñ Abdou Dia du yooli bi sëriñ tubaa xaadim rasuul demee itam gànnaar fekki woon na ko fa ànd ak nag jàmbaari sëriñ tubaa xaadim rasuul bii nag di sëriñ Afee Ñang di magi cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke ginnaaw bu mu demee gànnaar itam sëriñ tubaa xaadim rasuul daana ko fa jàngloo lii di alxuraanul karim ba tey ci mbirum sëriñ Abdou Dia Mbàkke du yooli mii bi sëriñ tubaa xaadim di ceyeen jolof sëriñ tubaa xaadim rasuul téye na ko fa ba foofu itam la ko xaadim rasuul joxe foofu itam cheikhul xadim daana ko fa bindiloo ay kaamile alxuraan ak di ko jàngloo itam lii di alxuraanul karim ba tax na itam bi muy jot ngërëmam ci dëkk boobu nag di cëyeen jolof am na kuñ doon wax sëriñ Ibrahim Ñas da doon jaayantee ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul sëriñ tubaa xaadim rasul moo ba tey ci mbirum sëriñ Abdou Dia Mbàkke du yooli kii di cheikh Ibrahima Sarr Njaañ nekkoon seexub ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul sëriñ tubaa xaadim rasul itam way na ko ay way ngir di ko ca sant ak ba itam waajuru sëriñ Abdou Dia Mbàkke du yooli la jóge jógee ndax soxna ja Touré ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul moo ko dëkkoo woon ginnaaw bu mu ko yeewee nag la ko doon jox nag magam ji nag di sëriñ Mbàkke soxna kero bu ñu ko koy jébbal Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ la ku baax ki sëriñ Tuubaa yónni ngir mu dem nag ci bu ñuy wax jéeñeel nekk itam nag ci suuf si nag di Saalum ngir yit na soxna ja Touré mi kii di sëriñ Mbàkke soxna di ko wax ne Xaadim Rasuul nee na nag nga dëkkoo soxna si kero bi muy dem dafa doxe Mbàkke Kajoor ba ci suuf si nag di Saalum moom Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ bi muy ñibbisi itim dafa doxewaat Saalum ba Mbàkke Kajoor moo tax Touba bi mu ñibbisee boobu Pastef ba mu ca am ak farlu gam ca am tax na kii di ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul sant ko ci ay way di ko wax jasaaka ba tey ci mbirum sëriñ Abdou Dia Mbàkke du yooli suuf sii nag di Daaru Salaam du yooli Xaadim Rasuul moo ko jox ndigal ngir mu sanc ko kero bi koy sanc ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul mi ngi koy wax ne suuf soosu nag di du ci pàkk yiñ ma wanoon nag ci la bokk waaye nag suñ borom dafa maa xamaloatoon ne am na baneen suuf nag su ko gën loolu moo tax itam jotumaa sanc itam ci suuf soosu nag di na nga te tudde ko daaru salaam sëriñ Abdou Dia Mbàkke Doyoly itam ba tey nekk na itam ku seexul xaddim fonkoon moom sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke ba tax na itam bagage yu baree baree baree bari yoo xam ne nii xaadim rasul daana ko jëfandikoo joxoon na ko itam na kii di sëriñ Abdou Dia Mbàkke Doyoly ndax soo demee ci njabootu sëriñ Abdou Dia Mbàkke Doyoly daa fa gis ay gaal yoo xam ne nii seexul xaddim moo ko moomoon te joxoon ko seen waajur wa sëriñ Abdou Dia Mbàkke Doyoly gaal yooyu itam bari na itam ci njabootu sëriñ Abdou Dia Mbàkke Doyoly ñoo xam ne nii soo demee seen kër daa fekk gaal yoo xam ne ni donn nañ ko ci seen waajur waajur wa seen waajur wa ci sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul la ko jëlee woon ba tey itam ci njabootu sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli ku fa dem itam daa fa fekk dàll yoo xam ne ni sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul moo ko joxoon sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli kaala goo xam ne ni sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul daana ko kaala woo te joxoon ko kii di sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli yëree kafe baraada kaas seggukaay ak lii di palaat itam sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim jébbaloon na ko kii di sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli soo demee ci njabootu sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli itam daa ko fa fekk ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ni jóge na ci nag dem ci njabootu sëriñ Abdou Dia Mbacke Doyoly waaye nag lii di gaal gi dàll yi yëree kafe ya moo xam ba kaas ba seggukaay ba palaat ba akaala ga njabootu sëriñ Abdou Dia Mbacke nag dañ koo def nag ndono képp koo xam ne ni yaa fi toogal sëriñ Abdou Dia Mbacke Doyoly bagage yooyu nag ci sa loxo lay nekk muy gaal ga kaas ba yëree kafe moo xam palaatu kafe ba kaasu kafe ba kafteeru kafe ba ak seggukaayu kafe ba ak dàll ya kaala ga sa loxo lay nekk man mii di Abdourahmane teg naa ci sama bët bët Serigne Abdou Dia Mbacke Doyoly nag ko amoon waa ci waay la ci xaadim rasul bagage yi ñu leen limal yëpp te mi ngi ci njaboot gi ku fi nekkal Serigne Abdou Dia Mbacke Doyoly ci sa loxo lañ koy tekk Serigne Abdou Dia Mbacke Doyoly nag wàccuwaay bu yaatoo yaatu nag la am nag ci ëttub ku baax ki Serigne Touba xaadim rasul ci lool nag la sax di liggéey di tarbiya booloo mi ko yaakaar ngir xaadim rasul ba ni xaadim rasul génnee àdduna ci atum 1927 mu jël léppam nag jébbal Cheikh Mamadou di ko xoolee xaadim rasul ba tax na itam nag kii di Cheikh Cheikh Abdou Khadir Mbacke du moom wax na ne itam bokk na itam ci mbàkke-mbàkke yi njëkk a jaayanteeg moom ginnaaw bu fi Xaadim Rasuul bàyyi ko loolu itam tax na nag Serigne Abdou Dia Mbacke du yooli ku fonkoon Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke la tudde woon na ko doom moom Serigne Abdou Dia Mbacke du yooli ndax Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke ibnu Serigne Abdou Dia Mbacke du yooli mi ngi fi woon te Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke Xaadim Rasuul la ko tudde woon Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke ku wóolërante woon ak Serigne Abdou Dia Mbacke du yooli ba tax na Cheikh Mamadul Fadal Mbacke mag la jàppe woon Serigne Abdou Dia Mbacke du yooli yi loola itam tax na bi ñuy natt dëkk bi ci atu 1960 Cheikh Mahamadul Faadal Mbàkke mi ngi doon xamal kii di sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma sëriñ Abdou Jëm Mbàkke Duyooli na këram wuuf nag lii di jumaa ji comme doomi xaadim rasool yi ndax itam doomu xaadim rasool la loolu moo waral itam sëriñ Abdou Jëm Mbàkke Duyooli këram wuuf jumaa ji ndax Cheikh Mahamadul Faadal mi ngi doon xamal sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma di ko wax ne doom la kon daa war a séddu loolu tax na nag tudd na Cheikh Mahamadul Faadal Mbàkke doom Cheikh Mahamadul Faadal Mbàkke ibnu Cheikh Abdou Jëm Mbàkke Duyooli mi ngi fi Ahad Mbàkke sëriñ Abdou Dia Mbàkke du yooli tudde na ko doom Cheikh Abdou Xaadir Mbàkke itam kasaalika sëriñ Abdou Dia Mbàkke du yooli itam tudde na ko doom sëriñ Soye bu Mbàkke ibnu Xaadim Rasul sëriñ Abdou Dia Mbàkke du yooli itam tudde na ko doom Cheikh Mouhamadul Lamine Baara Mbàkke ibnu Xaadim Rasul sëriñ Abdou Dia Mbàkke du yooli itam tudde na ko doom ndax sëriñ Baara Duli Mbàkke mi ngi fi te sëriñ Abdou Dia Mbàkke du yooli Cheikh Mouhamadul Lamine Baara Mbàkke ibnu Xaadim Rasul la ko fayee njabootu Xaadim Rasul gu jigéen gi itam kasaalika moo xam magam soxna ja Ture ak ñeneen ak ñeneen ci njabootu Xaadim Rasul gu jigéen gi ñu ci baree bare itam kii di sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ Abdou Dia Mbàkke du yoolu tudde na leen doom sëriñ Mbàkke Kandi Buso ko amoon ak jaxasoo la ak sëriñ Abdou Dia Mbàkke du yooli ba tax na bi ñuy dem Njàmbur di jàngi ci loxoy sëriñ Gàllaay Jaw ñoom ñaar fekkante nañ fa nekkandoo woon nañ fa itim loolu itim tax na nag amoon nañ ak jaxasoo gu yaatoo yaatu kii di sëriñ Xaafiye Ñang bokkoon itim ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki ki sëriñ tubaa xaadim rasul ñoom ñaar ñoo àndoon ca yoon wa ko amoonuk jaxasoo la na ak kii di cheikh Moussa Ka ba tax na cheikh Moussa Ka way na ay way na kii di sëriñ Abdou Dia Mbàkke du yooli boole koog magam nag soxna Faati Dia Mbàkke boo demee ci wayi cheikh Moussa Ka way sëriñ Abdou Dia du yooli ma ngay wax nag sanc gum sanc nag tubaa mbayaar ak dëkk bii nag di daaru salaam du yooli togg nag ay berne nag yu sëriñ Abdou Dia du yooli daa def nag ziyaare itam gum daa ziyaare ji magam ja soxna Faat Dia Mbàkke ak taqoo gum taqoo woon nag soxna Faat Dia Mbàkke ay bëyit daal la cheikh Moussa Ka def nag di sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly ñu teewlu ko. Cheikh Abdoul Khadir Dia borom Douyoly ñoo bokk ndey am nay wataak ay booli Mbacke Mbayaar la sañ ci def fay daara ngir darajay Cheikh ba ak maam Jaara waaye dadaa siyaare soxna Faati Dia ngir xam ni ne baam Bamba ko jox ay dara ja bayit yooyu nag la Cheikh Moussa Ka defoon nag ci sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly sëriñ Madiba Sylla itam ko jaxasoo woon ak sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly la ba tax na itam seede na ci sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly di wax ne mas na toog ak ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasul Seexul Xaadim di wax ne am na ñenn ñoo xam ne itam ci mbokk yi lañ bokk dañoo fop seenu njuréel jaay ko jënde ko taaliba sëriñ Madiba Sylla nag doon na wax njabootu sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly di leen wax ne wax jooju Xaadim Rasul waxoon sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly bokkoon na itam ko soxna Fat Dia Mbacke bintu sëriñ Touba Xaadim Rasul di magi sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly ginnaaw bu fi sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly bàyyi ko njabootam gi di Balla mii toog xalifaam ak ku ñuy wax sëriñ Mbacke moom sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly demoon nañ seeti soxna Fat Dia Mbacke di ko jaale nag rakkam jooju di sëriñ Abdou Dioly soxna Faat Ja Mbàkke mi ngi dénk njabootu sëriñ Abdou Ja Mbàkke Dioly di sëriñ Mbàkke moom sëriñ Abdou Ja Mbàkke Dioly te toog jamono ji xalifab sëriñ Abdou Ja Mbàkke Dioly mu leen de dund ngeen moom ba mu bàyyi koo fi waaye xamu leen ko mbirum sëriñ Abdou Ja Mbàkke Dioly nekkul nag lu ñuy xam nii nag ci àdduna lii nag soxna Faati Ja Mbàkke di magi sëriñ Abdou Ja Mbàkke Dioly seede na ko njabootuk sëriñ Abdou Ja Mbàkke Dioly ginnaaw bu fi sëriñ Abdou Ja Mbàkke Dioly bàyyi ko bañ demoon nag kàddu yii nag la leen waxoon ko amoon relation la itam ak Cheikh Massamba Mbacke ibnu Mamor Anta Sali Mbacke ndax ñoom ñaar ñoo maase daanaka ci ay at te teewul itam ginnaaw bu nekkee ci yéen Jolof Serigne Touba Xaadim Rasul daana leen boole ab liggéey bu bare bari Serigne Mor Soxna di taawu Mam Mor Jaara moom itam ko amoon relation la ak jii di Serigne Abdou Dia Mbacke Duyooli ba tax na ci yéen Jolof googu itam Seexul Xaadim boole na leen fa lu bare bare ba tax na bi mu génnee àdduna moom Serigne Abdou Abdou Dia Mbacke duyoli ci atum 1966 kii di sëriñ Abdoul Aziz Sy Malick Dabakh yónni na itam rakkam ju ñuy wax sëriñ Habibou Sy ibnu maam Malick Sy di ko wax na nag demal Touba da nga fekk ji nag sëriñ Abdou Dia Mbacke boobu ndax kóllëre ak wóllëre gu ma séqoon ak moom te itam nag mbokk la loolu moo waral sëriñ Habib Sy nekkoon rakkoo sëriñ Abdoul Aziz Sy Malick Dabakh keroog bi ñuy jébbal sëriñ Abdou Dia Mbacke duyoli boroomam ci armir yu mag yi fekkee na ko ci Duyooli nag ku ko amoon la ku bëgg a lim ku sëriñ Abdou Diam Mbàkke Duyooli daa waxal wala xaritooloon daa juum ci gàttal daal ñoom mag ñi àndoon na ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul kenn ku ne sa bopp nga defoon ne sa moroom moo tax njabootu Xaadim Rasuul gu góor gi itam kasaalika Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ba ci Cheikh Mourtada Mbàkke kenn ku ne nag sëriñ Abdou Diam Mbàkke tudd na la doom ngir bëgg gum bëggoon Xaadim Rasuul ak xool gum doon xool Xaadim Rasuul ci yow 1385 ci gàddaay gi alxemis juróomi fan ci weeru korite ci atu 1385 ci gàddaay gi dëppook muy jeudi 27 janvier 1966 jeudi 27 janvier 1966 ci këram gii nag wuuf jumaay Touba ci këram googu itam la génnee àdduna ci bisub alxemis boobu di juróomi fan ci weeru korite ci atu 1385 ci gàddaay gi ci xilaafa cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke ibnu Sëriñ Touba Xaadim Rasul ginnaaw buñ ko yëgalee cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke di ko wax ne sa mag ja Sëriñ Abdou Xaadir Mbacke ñu gën koo xam ci sëriñ Abdou Dia Mbacke Doyoly génn na àdduna Cheikh Mamadou Fadal Mbacke moo woolu sëriñ Abdou Khader Mbacke ibnu sëriñ Touba Khadim Rasoul di ko wax nag mu jullee jàmbaari Cheikhul Khadim jooju di sëriñ Abdou Dia Mbacke Doyoly kon Cheikh Abdou Khader Mbacke mu jullee sëriñ Abdou Dia Mbacke Doyoly ñu jébbal ko boroomam ci armeer yu mag yi ci wetu nag guy texe ci teewaayu nag mbooleem njabootu Khadim Rasoul gi fi nekkoon ak mag ñi fi nekkoon jamono jooju moo tax nag soo delloo ci way yii ko sëtam bi way di Cheikh Mamadou Fadal Mbacke moom sëriñ Mourtada Mbacke moom sëriñ Abdou mag ñuy wax nag ci njàngum sëriñ xab du jàmbake du yooli ci ñu mu jaar bi mu demee gànnaar fekki ko baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasul li ko Xaadim Rasul doon liggéeyloo ca yéen Jolof tim naka noonu bi mu jotee ngërëm jikko yi sëriñ Abdou Dia Mbacke du yooli yoroon ci baax ci tabe ak yiw ak nag topp gum topp ci ginnaaw Xaadim Rasul ak bis bi mu génn àdduna moom sëriñ Abdou Dia jàmbake du yooli ak weer wa marché bu yaatu daal la ko sëtam bii defal di Cheikh Mamadou Fadal Mbacke moom sëriñ Mourtada Mbacke moom sëriñ Abdou Dia Mbacke du yooli ñu teewlu ko bismillahi ma jub te jéema way sun maam ju baax ja jiitu woon ngir am na pay pay la gu wér gu bàyyikoo ca bamba te mooy lu wér yëral ma yow aalim ba liggéeykatub seex bamba mooy dundam ga mu sax ca sellal ga ba jot demam ga aamasasin la feeñ ci duniyaa ci lu wóor atum junneeg ñetti téeméer lim bi lay wóor déglul ma wax la yow turam mu màgg wa seex abdu xaadir la te mooy bàkkam wa déglul ma wax la it dàkkentalam wa sëñ abdu ja mbàkke te mooy lu wér la kookaa di góor kookaa di gor moo jara way def na fi lool kuy waykatit sañ di ko way moo waraloon muusaa ka saddu koy bayit ngir xam le pastéef baag magam moo xam bayit ba mu ganee àdduna foofee ñu naa jañal la ahlu mbàkke xam ne kii jar na siwal moo sell askan sell ñaari way jur Cheikh Abdou mii li ma ko wax du loon for maam Balla Aysaay maamam ci yaari wet ci wetu ndey ak ci wetu baay kii mooy ki mag mook soxna Fatija taawub Cheikh Bamba ñoo bokk jënd ndey mu jox ko cër ba kii moo di kàng fóore rafet xuraanu suñ mbàkke ramataa ko jàngal xuraanu gannaaw ba it jàngal na ko galaay jaw ak magi mag ak cerno faati ba mu way kat bu mag la daana def wayi arab leetar yi it daana ko de mbindam arab ma del siwaat xamal la ak jaayanteem ci seexu bamba moo waral ñu di ko yéem Ibrahima yi la magam ja soxna faati dee ko mu ne naam dal di laxas ci Sénégal jëm gànnaar ànd ci ak maam ba ñu ñëwee la Cerno faati gis leen ne leen ba ñu ñëwee Seex Bamba dal di yéemu ci seeni at Seex Abdu moom du juumu Seex Abdu dal di ja ak lu mu am ngir xam ne moo yor daraja Seex Bamba tërbiya na ko xeeti tërbiya ci bind ak jàng boole liggéey ya Seex Bamba daana ko jox nga bu baraay ak tuuti ndox maam Abdu Momat kiiraay daana ca boole ndab lu naan ndabal gor ngir ña cey bokk ñëpp dañ di ay gor ci loolu la ne ba mujj am fa kasfu bépp ñanaaw bu sab mën koo kasfu tayru ñu saahu bi alfatin yuallimuni maa waqa allahu min umurihi warada ba mujj bamba woo ko dal koy gaaral ci ay mbiram seex bamba pay ko tuutul yow abdul xaadir ja gërëm na la yónneen ba ak xuraanu tam gërëm na la man bamba mii di njaag gërëm naa la bu wér loo bëgg it wax ma ko man may ki ko yor ci abdoo nga naan tànnal ma mbàkke bal la loo tànn ma jël ko yaay ki sell bambaa nga ko naan nita la wax am yaay ki wax mu naan ko sag mbaax tax baa mën a wax bambaa nga ko naan tànnal naa la ci tànn lool boo doon ko jéem yow doo ko man ndax mayful bamba gërëm na ko tofal ko mbooloo taalibe yeeg mbokk yi ñëppay xewlu bamba ko jox ndigal Fall mu sañ ci dëkk Daaru Salaam di yooli Cheikh Abdou Diack moo fi sañcoon Mbàkke Mbayaar ak la ko wër booleeg liggéey ak di joxeeg sampale kër haafis la aalim la borom tawféex la ngir Bamba ne Sëriñ Abdou mi la moo waraloon Cheikh Fallu daana wax ne ñooy dend kër Bamba wax du sàggane taxawlu naa ci way ngir loo way wayit doo daj mbiram Cheikh Abdou mu ëppi bay jaama dasta sin la wuy ji yàlla na Bamba fay ko ngeen ji fay ngir yàlla yàggal fi it njaboot gi ak taalibe yi ak xalifaam Maam Balla ak soppeem yi man sët bi Fallu Mbàkke doomi Murtada maa ñaan ci yàlla buur wayu amrida ginnaaw marché boobu ko sëtam di cheikh mamadul faadal mbàkke moom sëriñ murtada mbàkke moom sëriñ abdu ja mbàkke du yooli moom sëriñ abdu xaadir mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ abdu ja mbàkke du yooli nag ay xalifaam nii la tëddee ci atum 1966 ba ci atum 1998 sëriñ cheikh mbàkke moom sëriñ abdu ja mbàkke du yooli moo ko njëkk a wuutu ñaareelu xalifa sëriñ abdu ja mbàkke du yooli ci 1998 la ba 2000 di sëriñ saalihu mbàkke ibnu sëriñ abdu ja mbàkke du yooli ñetteelu xalifa sëriñ abdu mbàkke du yooli mooy kañ doon wooye sëriñ Mouhamadan Mbacke Douyoly moo ko wuutu ci atum 2000 ba 2000 ci ñeenti weer ak ñeenti fan ñeenteelu xalifa sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly mooy sëriñ Mbacke Abdou Mbacke Douyoly moo ko wuutu ci atum 2000 ba 2012 ci atum 2012 ba nëgëni nag juróomeelu xalifa sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly mooy ku ñuy wax Mame Balla Mbacke Abdou Dia Douyoly moo fi nekk 2012 ba nëgëni ñu koy ñaanal suñ borom guddal aw fanam te wéral ay cëram te yàggal ko itam ci toogaayu sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly bi ndax sag la itam wi ak itam ci kër googu nag di kër sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ Abdou Dia Mbàkke du yooli yàlla na ko fa suñ boroom yàggal ci njaboot gi sëriñ Abdou Dia Mbàkke du yooli nag am na bis nag bu ñu koy fàttaliku wala am na ay bis nag yuñ koy fàttaliku ndax moom ci nekkinam wutaloon na ko baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim benn bis boo xam ne nii nag heure bu dikkaatee ci at mi dana dajale njabootam gépp itam dajale am amam ak dooleem ngir nag wut nag bu muy sant nag ki ko defar di Xaadim Rasuul bis boobu itam ginnaaw bu mu fi bàyyi ko sëriñ cheikh mbàkke abdou dia duyooli mi toogoon ak toogaayam itam dajale waatoon na njabootu sëriñ abdou dia mbàkke duyooli ngir ñuy wéyal bis boobu nga xam ni seen waajur wa moo ko taxawaloon wala moo ko daa amal ngir itam di ci sant ka ko defar amal ko lépp itam di xaadim rasuul bis boobu sëriñ abdou dia mbàkke duyooli daa def itam amulu ko woon bis fixe nag ci at mi danaa def nag heure bu ko jekkoo xam ne war naa sant ka ko defal lépp di xaadim rasuul loolu itam njaboot gi itam noonu lañ ko wéele woon nag di ko màggale noonee ko seen waajur wa doon màggale ginnaaw gi itam di ko jàpp nag ci weer wii nag di weeru tamxarit wéyal nañ ko nag di ko màggal ci dëkk bu selli bii nag di Touba ba ci at mi nag di atum 2000 ci atum 2000 nag la njaboot gi waxtaanaat ngir xam ne itam màggal gi Serigne Abdou Dia Mbacké du yéelu di seen waajur daa def war nañ ko yóbbu nag ci dëkkam bee mu goroon nag di Daaru Salaam du yóoli te weer wii itam di weeru tamxarit Daaru Salaam du yóoli nag dëkku tool la tamxarit itam nag lu ci ëpp itam nag ci waxtu nawet itam lay doon ci atum 2000 googu nag la njaboot gi waxtaan nag jële ko ci dëkk bu selli bii nag di Touba fas yéene ko yóbbu nag ci dëkk boobu nag di Daaru atum 2000 boobu itam lañ ko jëlee nag ci weer wi itam nag di weeru tamxarit waxtaan nag ba juboo ci saa buñ ko jekkoo ci at mi nag ngir mën a màggalal nag seen waajur wa ci màggal gum daa defal xaadim rasul 2000 ba nëgëni nag màggal googu di màggalug duyooli wala daaru salaam duyooli ñu ngi koy amal ci dëkk boobu nag di duyooli am na beneen màggal itam nag gu njabootu sëriñ Abdou Jambàkke duyooli nag di defal sëriñ Abdou Jambàkke duyooli muy bis bi mu génnoon àdduna ci weeru olof di juróomi fan ci weeru korite bis bi nag ci kër së Abdou Jambàkke duyooli gii wuuf jumaa ji nag lañ koy defee bis nag ci wàcceem kaa 500000 dong nag la yem ngir ñaanal ki leen tax a nekk dara nag ci yoon wi di sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly ñetteelu bis nag bu ñuy fàttaliku sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly ci dëkk bii nag di Ndakaaru ca quartier bi ñu na itam nag màggal guñ ko di Ndakaaru di Wakaam di fàttaliku sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly ñu ñaan ci sëtub maam Balla ba doomu sëriñ Mor Soxna ba kañ faye maamam di sëriñ Abdou Khadir Mbacke nekkoon taawub maam Balla Mbàkke yàlla na suñ borom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem wanale ko ngën gi mbindéef sallallahu taala alayhi wa sallam moom doon liggéeyal ngir xaadim rasul te lii di jafe-jafe réew mi tam yàlla na ko suñ borom saafara ci darajay sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ Abdou Jambàkke Duyooli amiin Jambàkke Duyooli amiin Jambàkke Duyooli amiin